may deg nak fani fan yi ñu nekk ci ku nekk naan seigne Babacar Mansour li nañ ci wax déedéet seigne mo Babacar Sy Mansour seigne Babacar si Mansour ñi koy nga ñepp mbalitu tariqa bi la moom. sam deguma la de. ku nga khalifa bi seigne Babacar si Mansour la xam mbalit nga ci tariqa bi. ya ilahi illallaah. waxuma nak bay am amna lo xamni ñun talibe yi la wax ku ci nga khalifa bi gëmu Cheikh Al hadji malik amna nak ño xamné ay mbalit lanu ci tariqa bi amna ño xamné ay mbalit lan ci yeen ci yeen say nga tàggandoog nit yeen ci mu jek jek bay deug la dok dok gis. deug la yonent bee ko wu sallallahu alaihi wasallam bu ko won du fi jóge yeen say nga deg ñu naan diw nu mëna nekk keur al hadji malik fa ba tak xey di leen leen ko te nit nag bu nekkee ci mujjug dundam lu ko neex wax waaw sëriñ Babacar Sy Mansour nag du njoowaanu tef dégguma la sëriñ Babacar Sy Mansour bukki la du njoowaanu tef sëriñ Babacar Sy xobu xël la xajul ci gémmiñu tef laa <laughs> ilaaha illallaah oh. waaw moom xobu xël la xajul ci gémmiñu tef nañu def attention ci moom ku bàyyiwul loo gis mu weex nga yaakaar ni meew la nga mëq ko di nga mës a mëq mëq suy bale sëñ Babacar Si Mansour du moroom xale yi hmm. maa lay wax rek waxal du moroomu xale yi parce que li Alaaji Maalik yoroon jox ko Alaaji Mansuur Alaaji Abdu li mu yoroon jox ko Alaaji Maalik li mu yoroon jox ko Alaaji Abdu Alaaji Maalik li mu yoroon jox ko sëñ Babacar Si Alaaji Maalik li mu yoroon jox ko Cheikh Alhaaji Mouhamadul Habib limu mu jox ko Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu jox ko Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ci al Maktoum hmm. mu jox ko Serigne Abdoul Aziz al Amin loolu pun njabootu Cheikh Al Hadji malik gi pun def nañ ko muy dank tek ko ci loxo Cheikh Cheikh Seydi Aboubacar si Mansour kon ku ko di nga toj lakk du morom xalé yi. mais mais mais mais Serigne Sam euh, tay ku gis ni ngay waxe ci Serigne mbey si Mansour dafa melni ni lu beuri yo xamanteni yang koy gis wala yang koy deg metti na la. déggoo ma li ma la wax sëñ Mbaye Mansour mooy xalifatullahi fii ard ñun dañu war a say ci moom seey ci moom nay ci moom nooy ci moom parce que mooy suñu chance